day a bari tuuti de. ok salaamaaleykum wa rahmatullah. ok waaye baaxoon yaa ngi féex réew mi léegi mer mi dafee bari moo tax bu ma nuyoo dama naan baaxoon yaa ngi féex dee leen ree asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo beeg siyaar bi di ci jiital seex Mouhamadul Muntaxa Basiru ayadallahu wa nasrahu yàlla na ko fi suñ borom saxal kuy sol sa dàll rek lislaam tax laa jóg yàlla na saw dàll jotal di nuyu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi di ci jiital Cheikh Omar Bamba Diop euh, di boroom xam-xam di kilifa di nit koo xam ne palaasam du kaso ñi ngi ñaan képp ku bokk daaru musti seen doom a ngi ci kaso bi te defu fi dara Cheikh Omar Bamba Diop dañ koo war a génne kaso bi ndax kaso bu këram waru fa woon a def benn minute boroom xam-xam bu mel ni moom nekk fii Sénégal ñu koy tëj ci kaso te deful dara ah gars yi war nañoo xalaat toogaay bi comme que nag dama sol tey couleur ex Pastef ci këyit waaye ex Pastef ci xol yi looloo naqaree tas moom te yaakaaruma ne ñii ñu jàkkaarlool mën nañ te loolu ku yàlla bind mënoo te sénégalais lenn la gën a bañ loo koy tere même doxaan buñ ñëwoon baax na kenn du doxaan nit da ngay gis mu takk soxna na ma yàlla baal mu lew ko doom mu ne ko fa cëpp di wëri leneen damay ñëw ci tere ñu bëgg ñoo tere kii nga xam ne suñu yaakaar la fas yéene tabax réew mi muy président Ousmane Sonko nga toog ci sa saal bu ñu kilim jël sa njaboot di yi doom bëgg ko écarter ci xolu sénégalais yi dama ne leen loolu képp ku leen ko yombalal na leen wóor ne mi ngi wax sax lu mu xamul président Ousmane Sonko nekkul nit koo xam ne da ngay tëju ci sa biro raaf turam dem tëdd di nelaw mu génn ci xolu sénégalais yi comme nii rek loolu xale bu ndaw sax bi nga xam ne da nga koo loolu koo ko wax du ko gëm Sonko yàlla moo ko def ci xol yi moo tax nag mën naa ne man euh, du ma ne bokkuma ci waaye it mën naa ne damaa bokk ci liggéey boo xam ne maa nga ca beneen wàll di def leneen ci mbiri président Ousmane Sonko waaye ñoom li tax nga xam ne lii bu ñee mouvement wu donga daara dama koy gëm man ab donga daara laa boo xam ne dama doon xeexal président Ousmane Sonko sama ruq ñoom it xeebuñu ku yàlla bind ci réew mi damay jël exemple ci sama bopp man duma dara keneen ak keneen bu kenn fëgg sa bopp kenn du dara suñ boroom rek a fi nekk waaye dafa am lu mu wan donga daara yi taxawal lii bàyyi mbay dina ma may tuuti dafa am lu ma bëgg leeral tuuti ci ci ci ci ci Cheikh Baara une minute rek nga baal ma Cheikh bi ñoom ñi wër Sonko ngeen baal ma ñi ngi yaatal di def liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la boo xam ne bis bu ci sénégalais tegoon seen bët dinañ xam ne procès Ousmane Sonko képp ku yàlla wàcce ci kaw suuf mënoo koo baare waxuñu ngir tëkku kenn chaque jour ma wax ko waxuñu ko it ngir di setal suñ bopp ngir ragal kenn suñ borom noppi na ci lépp waaye nag mën leen waxante dëgg lan lañuy soxla ci njiitum réew mooy jub moom lañuy soxla. waaw président Ousmane Sonko lan la def président Ousmane Sonko bu fekkente ne fexe nañ ñun sénégalais yi ba dugaluñ ko ci pale bi ñun kon mën nañoo toog waa ji xool nu mu ko neexee waxuma la Amadou de mu xool keneen ku mu ko neex mu jëli ko teg ko fi ku mën a génn réew mi génn réew mi ku mu fi neex nga toog waaye dama ne ko yéeneen jooju loolu du am président Ousmane Sonko kenn du ko seppi ci élection yii te daf ciy bokk. xam nga dañ naan ay palaa A plan B ngeen jàpp ne nit yi dañuy nax seen bopp wala dañoo toog ci dara rek di waxantu mbir mi demewul noonu Sonko dafa nekk nit koo xam ne mbiram li nit ñi di séen moo ci gën a ndaw wallaahi liy baatin ku yàlla may dara Bachira ngay gis yow yow sëñ bi nga baal ma loolu jëru sax di wax di fësal ndax yàlla bëggut yenn yi te yàlla buñ gis suñu bokk ci liggéey bii waaye nit ñii ci ginnaaw nga xam ne ñëpp a ngi toog jàkkaarlook sénégalais yi du nit ñu waaye di amuñu jot te du nit ñu dof te président Ousmane ko ji nañu ngor goo xam ne bu demee ba toog fee di gis lépp ñu toog di yokk koqi wala ñuy tëj suñu gémmiñ kon dañ naan war nañ te ñun duñ ay warkat ay niti alquran lañ duñ ay kàccikat te lépp luñ wax nar nañ ko def loo wax nag yàlla suñu borom rek ko man waaye ñun donga yi lépp luñu wax nar nañ ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Cheikh mhm. mhm. bi. si kàddu yooyu Serigne Mara kon dañuy dem directement rek si suñu mbokk suñu xarit di ko dalal itam di ko tatagal Serigne Bara xam naa ne euh, embouteillage yi. ni mu mel si Dakar moom moo waral euh, mu xaw a am retard waaye ñu ngi koy dalal bu baax te di ko jox kàddu gi sëñ Baara kon ñu ngi lay dalal. duggal. boo defee fukki minute hmm? de moom bàkkaar ba kii lay doon day doon sëkk. waaw salaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu euh, suñu mbokki journaliste yi ñu jàkkaar lool te euh, ngeen teew fi rek ndax acte patriotisme ak bëgg yëgal sénégalais yi di xew ci seen réew di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi muy seetaan ak pour mën nekk ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu tamit borom kër yi nga xam ne donc ñu defee tey euh, liggéey bi tamit kenn ci seen biir muy seesu Sénégal set di ci ndigalu Pape Ngagne Ndiaye nga xam ne ab citoyen sénégalais la boo xam ne euh, taxawaayam ñëpp ràññee nañ ko baax di ko gërëm ak Mbour ak mboolem yi fi nekk yëpp euh, tey nag li tax ñu daje ku nekk gis na ne daje woon nañ yoon wee weesu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 ñun ñu ngi ci loxoy Ousmane Sonko ak di ko continuer di yaakaar ak di ko bëgg ak di ko wóolu tey di ko continuer di topp am na ak coppeeku bu am ci wàllu politique jëm ci kooku ñu tudd léegi mooy Ousmane Sonko coppeeku boobu bokk na ci li tax ñu toog fi tey parce que ginnaaw bi àtta ba ñu kase li nga xam ne mooy jugement bi Sabassy Faye àtte woon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 dañ na ko ba boo ko saaba boo ko tuddee rek ñëpp xam nañ jërul ngay jàng benn aaya ci biir ñëpp xam nañ la mooy maanaam tabat ma kon nag cent onze mooy tabat ah. <laughs> moom lu ci lu lu ci waaye wér wu dem de waaw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 ñooñ alxuraan kenn waru leen cee jiitu te kenn waru leen cee man parrainage la laaj hmm. ñoo ngi ci terrain bi hmm. ñoo suñuy nit ak suñuy pexe ak suñuy doxal di di di parrainé waaye duñ ci yam constitution bi ci boppam ñun danañ ko génn entre imam ak jàkka yi ak daara yi ak sëñ daara yi ak doomi daara yi niti daara yi danañ ko génne te soo ko fekk ne Ousmane Sonko moo nekk ci seen xol dinañ ko dajale deux mille deux mille cinq mille cinq mille ba mag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 la ko fa yóbbu jàpp naa ne ñi ko fa war a génnee ko jàpp naa ne warut a kenn ku dul niti daara yi ak niti imaam yi ndax naa dem sport ba wàññeeku ñu jàpp ko hmm. mënoon naa dem mënoon naa dem tamit euh, réunion politique mënoon naa dem waaw mënoon naa dem réunion politique ba wàññeeku tamit ñu ne nañ waaye dafa jógee ci jumaa julli ci ajjuma waññeekoo ca julli ga di ñibbi këram ca kon ka ko dogaale filma ko ci yoonu jumaa ji la ko dajeeg moom filma ko filma ga néexu ko ñu di ko lijjanti ba coow yi am ca ba mujj àggul këram ñu dogaale ko yóbbu ko prison kon jàpp naa ne comme ci ñun jumaa ji ji la woon di ñibbi te àggul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 am na li nekk taxi mais nit ñi dañ koo wóolootu gis nga Ousmane Sonko suñ ko jàppul wóolootu kenn attewu ko kenn tegu ko dara moom ñemewul a jël ab candidature am képp dem déposé ko il faut mu am jël kee lakas fee lakas fee parce que xam na ne ñu ko seetal doxaluñ yoon te bu ko defoon Sénégalais yëpp naan lii nga def nga war a def parce que boo demee dañ lay baaxee.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 bu ma la gisee ma koy tooñ ak sa sa sa co col ko wayam kii nga sol damaa yaakaar ne xamoo filo gi ñu teg ci biti ma ne ko Ousmane am na ñoo xam ne deux mille vingt et un ak bu nekk danañ dox jàng doxu alxuraan te bu daanu ñu yëkkati beneen am na ñoo xam ne jaamu yàlla bu nekk nit ñaa ngi duggee nañ koy def ndax yow mu ne ma a ah, waaye yow man bu tooñ ma ne waaye yow man bu ma nekkee président yow loo ci def yow ma ne ko man nag président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 sëriñ bu wér amul ñëpp ñu ngi sa ginnaaw te loolu nag jamono bii mu ñu mel ne néewal nañ ko doole moo tax ñu bari lu ñuy gën di ko wax ne ko ñëpp tey kenn bàyyiwul la ñëpp sa gannaaw te loo dogal ñu nekk ca mm. te insha allahu rabbi yi 2024 mm. palais bii Ousmane Sonko koy doogee képp ko ko ko yéene daasal say bëñ nga soccu dana da nga ku ko ko yéene nag baye boo wut musuwaar boo ko pesee rek bon wasalaamaaleykum wa rahmatulah.